présidentielle ak cette attente qui commence à durer euh, le choix du candidat le président Macky Sall depuis que mu désisté ba tey ci 2029 2024 bi waxoon na que dina ñu xam euh, ki nga xam ne moo nar a nekk le candidat yéen nag euh, ngeen joxoon ko carte blanche ci parti APR mais également ci grande majorité présidentielle bi seulement yëfi ça tire en longueur et nous ne comprenons toujours pas euh, raison yi ndax mën nga ko expliquer waaw jërëjëf man damay fàttali ne man maa ngi parti synergie pour un développement durable mhm. S2D mhm. yoonu naataange te ñun pratiquement bokk neen suñu njëkk wax ne son excellence président de la république Macky sal moom mooy suñu candidat en 2024 yàlla dogal mu ñëw ne du candidat euh, man mii di Souleymane Ndiaye teewee naa si réunion conférence des leaders de Benno bu ñu tenir le 10 juillet 2023 euh, xam ne ñun ñoo jox carte blanche son excellence président de la république Macky Sall pour que mu tànn un candidat consensuel pour la coalition Benno Bokk Yaakaar. mais mhm. maintenant nit ñi ñoo yàkkamti rek waaye ba léegi je pense que président de la république kenn mënu ko teg pression euh, ñu bëri déclaré neen seeni candidat mais ñun moom la ñu déglu wax naa ko keroog yow mii jàmmaarloog man. Mhm. su la tànnoon ne yow yaay. candidat Benno Bokk Yaakaar su boobaa dañu topp sa ginnaaw jàppale la incha allahu rabbi pour ndamu réew mi mais également pour la continuité mm -hmm. nest dama koy faral di wax consensus nag du unanimité yàlla sax ñëpp gëmuñ ko mhm. n'est-ce pas mais c'est l'absence d'opposition ferme pour parler de jargon de normalisation comme ni ma ko waxee keroog mhm. n'est-ce euh, majorité bi fekkee ne ànd nañ ci benn candidat rek loolu la ñuy wax consensus. ah mais léegi euh, su soobee yàlla. consensus boobu euh, dina am.